presse. El Hadj Ahmed Aïdara. bismillah ginnaaw élection présidentielle yi day ah Macky Sall day ma nga ca élection mairie ah ñemewu ko maa wax ni lee Le Quotidien le kaay ne ma ne la président Macky Sall day waaw ma ne la kàddoom gu njëkk nag daal dina ko yëkkati day ginnaaw nag ba ñu génnee kon résultat provisoire ya ma ne la président Macky Sall kon woon ca diwaanu Tëngéej jëlee doon fa jaale nag njabootu ndem si yàlla alaaji buubu sow di imaam rati bu gox baax moom président Macky Sall moomee ah daal di ne jaajëfal nag waa bu baax a baax te lam li nga xam kon am nañ ko ci élection présidentielle yi Macky Sall ne leen la may sàkku ca yéen daal mooy nii ngeen mel nii ngeen continuer ko rek ba weeru décembre élection locale ya box sobi li ne en tout cas opposition bi waaw mi ngi deuxième tour de élection maire ba mooy deuxième tour yo docteur Atta Badji waaw waaw weeru décembre bi kay jàpp leen ne élection présidentielle yi day prolongation yo fa lañ koy joué maanaam élection maire ya le quotidien ne kaa ne maître Aïssata Tall Sall day waaw nee na bu doon moom ah, ah. boole élection député ak élection locale 2019 yo day daal di koy def kenn nag laa la wax ca Guédiawaye kay tribune yéene kaay nee waaw ma ne la ëllëgu lëndëm la yor avenir bu sombre lool ndaxte APR ca Guédiawaye day waaw ma ne la jox xooteeku la jëm loolee mënul ñàkk tas waa yi waaw waaw nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Alioune Sall day ak Racine ak la Diop waaw ma ne ña ngay reyante laa la wax waa kër la Diop day waaw nee nañu Benno Bokk Yaakaar bu gañewul ca Guédiawaye googee maanaam amuñu cinquante la ko waral du dara lu dul Alioune Sall ah waa kër la Diop ne waaw Alioune Sall tax ba gañewuñu fii ci Guédiawaye laa la wax amuñu cinquante pour cent parce que askan wi ci boppam kon Alioune Sall lañu mere te ñun nag li ñu bëgg a wax Macky Sall xamal ko ko mooy gis nga Guédiawaye gii wallaay ku dul doomam oh koo def maire bu Ndakaaru Ndiaye Diop nag waaw Moustapha Cissé Lo day ak Abdoulaye Diouf Sarr waaw da ngay rayante de maar tey taali maar tey taali Moustapha Cissé Lo bu gañee bii ci Nord Foire Ouest Foire Jàmmalaay ak Apexi waaw ginnaaw yàlla Abdoulaye Ndour la ak man mii Cissé Lo parce que Abdoulaye Diouf fi dara ca yàlla Abdoulaye Diouf Sarr ne ndam li daal ku mu neex fabal ku ne am nga sañ-sañ ne ndam li yawa ah. man Abdoulaye Diouf Sarr laa wax yéene kaa gi ne Macky Sall na daaneel bi nga xam ne kon daaneel nañ ko ci Ndakaaru njaajaajoo gi a ata TF waaw non Macky Sall punkale mi nekk ci capital bi dañ leen a humilier de toroxal leen bañ na totora laa la wax demoon ni day loo ëpp fukk ci ay ministre laa la wax ñi ngi Ndakaaru njaajal joo ak ay directeurs généraux société nationale ba mi lée daal di koy tëj kaso jël ay punkaloo Khalifa Sall yu bëree bëri SMS Abdoulaye Wade nekk complice Bamba Fall nekk complice ak seen bu lu bari yi Ndakaaru Amadou Ba mi ngi ci Ndakaaru Baba Abdoulaye Seck Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr Ndakaaru Maïmouna Ndoye Seck mi Ndakaaru Anta Sarr Diago mi Ndakaaru Yakham Mbaye mi ngi Ndakaaru Aboubacar Sadiq Bey mi ngi ci Ndakaaru ñoom ponkali taxul Macky Sall yi bees yi baxamaan yi ah waa ñooñu seenu ëllëg nag seenu ëllëg nag mbalit ma rek mbalit ma rek critique yéene kaay ne Idrissa Seck day nangu ndogal nangu ndamal Macky Sall lii est-ce que du ah, rek di directeur ba ne ñaari a di day day waaw nangu ñunu loolee seen Serigne bi yàlla bu coow am maar di taali waaw parce que nag ñi xam ne ko nañ leen a di leen traqué di leen diidal di leen teg loxo dañu ne ci opposition bi lii luy ndee tribune yéene kaay ne doxal bi nga xam ne ñu ngi koy doxal ñu doon jàppale Idrissa Seck day waaw doy na waar bos sobli réew mi waaw ma teg nañ ko loxo ma nga ca section recherche day ca gendarmerie nationale yée waay samba yée waay samba te fekk dafa nag daanaka loo ëpp kon laa la wax ay militants yi bokk ci bi tribune yéene kaay ne waaye moo tax it am na ay yoo xam ne day ñu nga xam ne yemuñ ca ndaxte nee nañu danañu xeex ak wàllum jaay doole gi la di wàllum dictature wàllum tii dalaata gi lée yorub nguur di ko dóore du yoon déedéet sur quotidien ne en tout cas waa Sénat ba day wax nañ seen porte parole ba Issa Sall waaw nee na résultat yii daa méngoog résultat yi jóge ci commission départementale de recensement des votes Moustapha Cissé Lo ci sut sa waaw ne Khalifa Sall Karim Wade bu ñu bokkoon ci élection yi day Macky Sall deuxième tour la jëm aa Cissé Lo ko wax de directeur ba ne Macky Sall day bu amee ndam ca njaareem ke na ko gërëmee Birima Mangara parce que benn waa ji naa dugg proximité sociale jabaram maa jigéen ak mu bambaa nga ca betu njaareem bi ak Mbacké Mor Issa ci tribune yéene kaay waaw nekk naa Dakar ak Dakaru njaajal jógi la day premier temps beeg Ahmadou Ba ñoo tax ñu am fi lim fi am di ndam li Mor Issa yamu ca ndax waa ji nee na parce que ñun nag suñu liggéey nga tàmbali ko ca parrainage ya Seydou Gueye porte-parole APR ci la Soleil yéene kaay waaw nee na résultat yi mais askan wee wax le peuple abarle lii daal la ñu war a njiitu réew France di Emmanuel day daal ne Abdoulaye taxaw de lu doy waar parce que ministre des télécom day naxarlu na aji yi tax ba ARMP day daal dinay gase marché ba source année rapport inspection générale d'État ak ak Cour des comptes waaw ba ñu gëjee publier seeni rapport kenn xamul kañ la ëpp dee ARMP nag daa toog ci ay rapport 2017 2018 waaw IG ak Cour des ak OFNAC day ñoom moom gëj nañ fi depuis 2016 eh way sam eh way 2012 ba nii ñuy adoon ni lée nga am looloo jaralaaj Birahim Seck forum civil ne xam nga lu ci gën a doy waar Cour des comptes bi nga xam ne kon moo nekkoon royukaay gi day lu yàlla xam léegi doy na yéene kaay daaw da jàmba yamu ca ndaxte nee ministre de la justice day waaw nee am na ay punkal yoo xam ne kon ñi ngi nekk ak Macky Sall day dañ a jàpp loxo ci poos waaye ñi ngi remboursé ñi ngi remboursé waaye yan rapport ñoo jàpp nag punkal yoo yee di ay digiteeru Macky Sall dañuy remboursé sa suuf yan <laughs> li yi naan amba en arrière léegi daal kaas ay morsoy xonq ay ñaxtu ay wàcc ci mbidd mi ay dëkk bi dafa makki mbir mi dafa miti yooyu moom moo fi jeex boo paree ma ne la alaaji tëjal Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf jinjeeru xewu colonel Kébé ko gën a saf jamono ji ci réew mi colonel Abdourahim Kébé saf na sàpp ci yéen kay ñu xëyndal bi l'observateur nee nañu dafa dem ci page Facebook am bind ci ne askanu Sénégal jóg leen fipp ak doole war na ngir ñaawlu ak a bañ hold up bi am ci réew mi te muy pexey Emmanuel Macron ma ca France révolte populaire rek moo ko mën a fàcc ngir ñu wan waa France ne Sénégal du république boo xam ne dañu koy sàkkal yoon yu mu a jaar risque volonté populaire bi Abdourahim Kébé yéenekaay bi nañu newoon nab colonel ci l'armée bu Sénégal jiite woon na fi DIRPA ay jamono jamono ji mu doon secrétaire national chargé de la défense bu parti réew mi di parti bi Idrissa Seck bi nee nañu lii la bind ci Facebook am moo waral ñu fekk ko ca Ndar ga mu dëkk jàpp ko gàddu yóbbu section recherche ngirub enquête libération nañu ginnaaw yi tojaanga yi mu yàgg a ñu bàyyi ko ci moom colonel Kébé démb la ñu ko jàpp journal bi moom it di ñu leeralal li tax ñu teg ko loxo Vox Populi nañu colonel Kébé bu parti réew mi ca Ndar la ko jàpp jàppe yóbbu ko ci section recherche bu gendarmerie Colobane journalisé ko nañu jàpp gi ñuy def waa parti réew mi ma ngay wéy ne secrétaire national à la défense di colonel Abdourahim Kébé ma nga ci loxo yoon nee nañu dafa wax lu waxuwul waa Sénat wax nañu ci wootey présidentielle yi ñu doon def ci réew mi Sud Quotidien moo ñu ko wax yëral journal bi Vox Populi nañu ci élection locale yooyee nag fi la ko opposition bi doon xaar ne dañoo bëggoon a dem ak moom Badji du koy gëstoo ko xeltoo ko seetlu jëmee ci wàllu politique ni ñu ci xët mu njëkk vox populi élection locale yi décembre yooyee moo nar a doon prolongation yu présidentielle yi weesu les éco nañu maître Aïssata Tall Sall borom oser l'avenir dégg nañu ko démb ci rajo Futur Média ci émission Grand Jury mu ne li mu xalaat moo di ñu tas assemblée nationale bu ñuy organiser élection locale yi defaale élection législative yi moo gën nekk cim réew élection yu ñu dugg ba génn rek duggaat ci yeneen loolee dafay mitti ci ñoom politiciens yi mitti ci askan yi mitti ci koom-koomu réew mi waxam joojee mu wax ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média moom maître Aïssata Tall Sall wax ji mi ngi ci Vox Populi mi ngi ci l'Observateur mi ngi ci Le Quotidien mi ngi it ci journal Sud Quotidien wootee gox yee yi la bëgg ñu boole koog wootey député yi def ko muy benn benn journal ñaari tiitër noo la direct info xëy tey ji benn moo di dem ga ñoom ma Madické Niang ñoom Idrissa Seck demoon Touba seeti Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides ba ñu ñàkkee wootey présidentielle yi 2019 ba ñu yeggee xalifa bi dalal leen dalal seeni dënn def jàmm ci ñoom sàkku ci ñoom it sañ ñu sax ci lu dëkkee saxal jàmm ci réew mi ci beneen wàll wi journal direct foo xëy na ndam lu rëy li benn bokk yaakaar amee ca département bu Diourbel ak lu rëy li ci Birima Mangara liggéey ngànnaayal Macky la ca Diourbel noonee la yéenekaay bi tuddee ministre di budget mu di Birima Mangara ni mu siiwalee plan Sénégal émergent ca dëkk ba social gi mu dëkkee ca dëkk ba ak proximité yam fa doon def journal bi nañu bokk na ci li gën a yombal ndamam ca Diourbel jàppale ne baax a baax responsable yaakaar ya foofee feneen mu di ca wàqi naan nimsaat ga ca géejawaay l'observateur nee nañu maire ba di Racine Talla am ndaje woote woon ngir doon sant ka askan wa ak ni ñu taxawee ba gàñal Macky Sall yéen kaay bi nañu waaye moom Racine Talla yamu ca ne waxaale na ay doléance am njàmbat yeeg xultu yeeg jafe-jafe yi nga xam ne ab diwaanam di wàqi naan nimsaat mi ngi koy dund nee na bëgg-bëggam moo di ñu gën a gestu askanu wàqi naan nimsaat ci bépp faat na nag rawatina ci wàllu njàng mi ndax mëne suta comprendre quartier bu ci mel ne Daaru Rahman amul benn école primaire libération war na ko lijjanti war naa génn ci bureau jóg dugg dëkk bi xool yi mel noonee mu réglé ko libération nañu maire bu Wakhinane Nimzatt di Racine Talla yemul foofee xam le na nit ne du ñu mës a nangu toog di seetaan ñuy saax-saaxee littoral bi littoral ba ca Malika lu ñaaw am na fa ubbi waat leen l'observateur benn xale bu góor bu ñu naan Amadou Seydi tollu ci ñetti at ak genn wàll moo réer ay mbokkam di ko war keroog la ñu dox ba gis ko ñu rey ko sol ko cib saako sànni ko ci filaawo yi waaw turandoo karo bu baax nu muy mel soo jëndee karo yu baax